nga xam ne moo di njiitu moom ci li nga xam ne kat mooy gaaw gi war na daal di daloo nga xam mooy conclusion ak i recommandation tukkee ci dialogue national bi waaye ginnaaw loolu kat war na am discours bu nga xam ne ko jagleel Moustapha Niass bi nga xam ne moo doon coordonné liggéey bi ñu bëri nga koy xaar ci leneen waaye li nga xam ne kat moo soxal askan wi moo ci ñetteelu mandat bi kon tamit ci fàttali njiitu moo war na waxtaan ak askan wi waaye itam gën a fexe renforcer la waaye ñu bëree bëri ñaar fukki fan ak juróom ci weerum juin ci atum 2023 bii ñaareel discours bi nga xam ne kat moom la war amal ci contexte bi nga xam ne tàng na loolu te métti na kon tamit ay ndëgg sërëx yu bëree bëri war na ko cee moytu bu ci njëkk daal mooy wax discours boo xam kat ñu bëree bañ ci noppee dañ naan lii dara du ci fees maanaam amoon na fi kat daana am kon ñu bëree bëri yaakaar ne moom ñu réew mi ci boppam war a xoolal doxalinam waaye itam ñu bëree bëri ragal ay jàppante jàppante yi nga xam ne ñu bëri nee nañ kat ñu dem ca cité kër góor gi niki dimanche waaye fexe ba génne ki nga xam mooy Ousmane ko ndax jàpp kat takk der ñoom dañoo war nomba këram kon nag mu nekk ñaari mbir yoo xamee kat nar na métti ci askan wi ni ki dibéer kon discours bii nag moom war warta féewale war na dajale dalal xel yi bu ko defee tamit askanu mën a tabaskee ci jàmm ndax ñu bëree bëri ñu ngi koy waajal te guvernement bi laataa rek ñuy yegg ci élection tab njiitu réew mi war na mën a fexe ba tàppe xol yi waaye tamit daal di teg ak gouvernement bu nga xam ne war na am dëgmal bu nga xam ne kat ñu bëree bëri kat dañ ci yaakaar ne lii seen ëllëg dana ñoŋ kon ñu gis ne lépp mi ngi ci loxoy Macky Sall moom bis bu waxee ne kat candidat la wala déet ci nii mbaa ci ne dana am jeexatal gu bon ci fii wala ca fële kon nag foog mu wax ne moom day bokkam du bokk loole ci ñëpp dañ ko ciy xaar kon risque bi nga xam ne kat moo am wala sax ñàkk a déggoo loolee kenn mënu cee rëcc la mu war a moytu rek mooy discours boo xam ne du saf dara la muy xaar daal mooy wax discours bu nga xam ne kat moom ñi ci réew mi discours bu dajale